léegi wax ñu fu docker tool léegi docker yoo tam docker léegi du ma wax fii euh, revenu à peu près mais docker léegi am nañu salaire bu baax organiser nañ leen am nañu ay euh, indemnité de fin de carrière kuy dem retrait dañu lay jox dara attention nag parce que du docker yépp ñoo am loolu parce que métier boo gis. dafa am docker ak docker. non métier boo gis baari ñinde baari ñinde déedéet déedéet dafa naan loolu ñoom léegi dootuñu baari ñinde docker lañu ouvrier docker mais métier boo gis dafa am ku nekk si suuf ku nekk si digg bi ak ku nekk si kaw. oui oui dëgg ka nekk sa kaw mooy ki nga xam ne yàgg na fi. liggéey na fi euh, liggéeyam doy nañu. Mhm. ñu jël ko jox ko li ñuy wax titre docker professionnel. Hmm. kooko dina am lu mat euh, téeméeri junne lu ko jege. ci port si port bi ah yow tamit da nga foog ne danga foog ne docker euh, duñ duñ ko fay dañ koy fay docker. ok parce que wax naa la sànq ne la économie réew économie réew si ñooñu la wax naa la ñun ñooy les premiers soldats de l'économie gis nga tey jii ma jox la benn firnde bu tuuti balaa may dellu si waat si docker yi boo waxee professionnel da ngay wax occasionnel après nga wax nag docker sur carte d'identité boobu mooy bi nga xam ne nag mooy bu mujj bi gis nga bi ma nekkee si gaal yi mat laa jëkke wax nga dëgg parce que normalement si suuf ngay jëkkee soo ko si kaw mat loolaa jëkk def di mignon ak di peinture après ma nekk euh, troisième lieutenant après ma nekk deuxième lieutenant après ma nekk premier lieutenant après ma nekk capitaine. di dawal waaw nekk nag koo xam ne man bu sa jëkk ba maa daan nettoyer toilettes yeeg yooyu yëpp parce que mat lu laa war. Hmm. dindi samay diplôme denc ñëw di daan sama doole comme ñëpp parce que sama papa moom moo ko ne ma y a pas parce que dama jóge Espagne ñëw ne man officier laa du ma liggéey leneen. mais ba mu ma waxee loolu ma dem ñu wax jox ma post matelot mais matelot nag laa jóge di yéeg di yéeg di yéeg di wane sama sama mën-mën parce que liggéey boo si nekkee da ngay wane la nga mën pour ñuy jël nag di la jox confiance nga yéeg nag nga yéeg di am garat ba ma nekk capitaine donc nag tey jii docker yooyu ngay wax am na docker professionnel mooy bi jiitu boobu moo ëpp salaire moom contrat a à durée indéterminée la yore malgré que travailleur journalier la parce que dañuy wax travailleur journalier rek mais travailleur journalier am na ñoo xam ne c'est pour loo koy jaayee trente waaw da ngay perte te saa nga jënde te boobaa sax est-ce que duñ leen topp ah voilà dañ ñuy topp si loolu moo tax ba nga xam nag métier la boo xam ne du ku nekk moo koy def war nañ ko xam war nañ ko jàng parce que dafa am c'est un c'est de l'art parce que gis nga boo fekkee euh, manutention di am day mel ne orchestre. Uh-huh. c'est de la symphonie. day nekk loo xam ne. dafay rafet. parce que dañuy jël marchandise fa mu nekk. Uh-huh. yëkkati ko dans des conditions extraordinaires. Uh-huh. dans des conditions de sécurité. moytu nit ña fay liggéey. génne ko teg ko ci suuf. fourchette jël ko yóbbu ko denc ko. boromam bu ñëwee jël ko. nam ko commandé woon. teg ko ci otoom yóbbu ko fa nga xam ne foofu la koy soxla. c'est là où on a notre réussite. moo tax ñun. du loo xam ne du métier bu facile mais nous faisons partie dama koy wax toujours des soldats de l'économie